di joytu nag métit bi nekk ci Touba gii ci jigéen ñi muy maal wàllum ñàkkum ndox ñun de man ñun bokk ñun suñ koñ bi ñun ñetti at ci ren yàllaa tax may wax ñetti at ci ren màggal gi ñu jëm buñ ko fekkee ci jàmm ak fekkee ak tal ñetti at yu nga xamante ni amuñu ndox root nañoo roota root ba nurutuñu nit ba ñu dalee wutum ndox kenn xamul kañ la te mënuñoo fexe fu ndox am dañuy dem ba jéggi tali fa la ñuy roote ji bu fekkee na am na kenn kuñ ci mën a jàppale ñu jàppale ñu ndax jigéeni Touba nañ état bu Sénégal waa Ofor ñi ngi leen di yaakaar di yaakaar yàlla ngeen dimbali ñu ci ndoxum Touba ndax jigéen ñi Touba sonn nañ te lii de mosu fee am lu toll ne Touba dëkkub suñ Touba bii ah ku ci man ci lu baax wala nga man ko ci sa doole wala ci foo ko yaakaari ndox mi dikk Touba tàllal nañ la suñuy loxo. yaakaar yàlla yaakaar la nga indil ñu ndox mi ndax jigéeni Touba sonn nañ talatu ñoo fóot talatu ñoo dem marché gisuñu toq bay gis robinet buy xeele toq ndox gisuñ ko ak ndox gisuñ ko ci suñu robinet yi suñu robinet bii ak yeneen robinet li ko tàmbali ñun xayra de gisaguñum ndox déggaguñ ko gisuñu ko ko yorit waaw li ko tàmbali boo jéggee tali ba boo jéggee tali bële dañuy rootaani te bu ñuy rooti dañuy ŋàbb suñu bidon yi dem te ko duy ko dukkat ko génne ko wutub sati mu tegal ñu ko indi na ko suñu kër gi ñaari fan duñ ko amoon jeex ci këru jabar kër gu mag nga xëy utiliser lu toll ak juróomi téeméer bu subaa nga bëgg koo utiliser foo jëlee loo def ci sa bopp. man Baye Gueye ne bokk ci délégué marché Darou Marnaan may jàmbat di jooytu di mettit lu bu baax it jafe-jafe yii nga xam ne ñun waa xayra am nañ ko ci ndox mi te muy lu xam ne lu ñu metti lool la wax dëgg yàlla ndax lu xam ne màggalug Tuubaa daaw ba fii ñu toll toqub ndox mën nañ ne saabuñ ko amee ay bidon la ñu ŋàbb wala ñu daaw di wëri ay citerne di ko carte doon ay boromi kër yu xam ne dañoo war a xëy liggéey loola wax dëgg yàlla metti nañu lool ba ñoo ngi sàkku képp ku xam ne am nga menn pexe ci ndox mi wala xalaat nga dimbali ñu ci loola ndax xam nañu ne fi mu toll événement yi nga xam ne ñu ngi jublu si Touba muy lu mel ni tabaski muy lu mel ni màggalu Touba jafe-jafe yi ñu ci amoon daaw moom ñoo ngi ñaan yàlla ak Cheikhul Khadim màggal gi di ñëw yàlla buñ ko ci am. Touba daal ak loo ci mën a dégg ñu ngi naan am nañu ndox waaye fii ci xayra de bokku ci. wala man Baye Gueye mii de li nga xam ne moom a war bokk ci. loolu dajale woon nañ fi koom mi man mii bokkoon naa ci ñi nga xam ne lu ñu néew néew kattan am na luñ ca defoon. ba jotoon a wax ne mi million la waaye loole booba lañ ci mujj xam dara te bañ ko dajalee ba noppi keroog lañ gën a ñàkkum ndox metti na lool ndax wax dëgg yàlla fi mu ne yeggoon nañ ci sax ne dañoo bëgg xeetu pàkk bu xam ne xaayira lañ koy jagleel ngir xaw a jéem a wut suñ forage bopp boo xam ne ci xaayira lay nekk loolu jot naa ko dégg en rumeur waaye ba léegi daal xam naa ne amaguñu benn saafara ci ndox mi daal te jaaxle nañ man mii day xam naa ne ci réew mi laa dëkk te ci dëkk bi laa dëkk te fi la sama njaboot nekk fi la sama kër nekk ba ma déggee ñu ne xaayira am na ndox it day nee naa kon ñun bokkuñu ci ñun nag ñu ngi dëkkee ci wetu kër sëñ Modou Boussa Dieng ci wetu kër sëñ Afim sëñ Fallou diggante moog isin xorom xam naa ne foofa daal jamono boo fa jegee rootkat yi moom xam naa ne xam nañ ne xaayira googu moom amut ndox moom ah ñun de gisuñu robinet bii ci hôpital bi de fi la ñuy rooti te pompe bee waral ñu am ndox bu fi pompe bi nekkuloon du am ndox màggalu daaw ba màggalu ren dañuy root ko xayra manqué na ndox lool de xayra ak sëñ Modou Bousso Dieng gii manqué na ndox lool lool lool ba jaaxal na root nañoo root root ba nu rootu ñoo nit dañ ñu jàppale defaral ñu forage yi mu baax su forage yi baaxee rek macha allah loolu daal la ñuy ñaan ndox mi man ab jàngalekatu alxuraan la dëkk fii ci Touba Xaahira de yor daara di jàngale alxuraanul karim waaye nag manqué ndox mi xaw ñoo sonal lool ku mel ni daara nag day mel ni barab yu baax barab yu bari baaxoon na mën a ñàkk ndox mu xaw koo jik waaye daara nag mel na ne mënut a ñàkk ndox ndax xale ak cet ñu ànd te wax dëgg yàlla fii ci ñun ku mel ni man tumuranke naa ci lool tumuranke naa ci ñàkkum ndox mi te jël naa mboole moyen boo maa def mooy monte na pomp am naa réservoir te mu maa tax ndox kon nag maa ngi woo waa Ofor di woo Maa ur Rahma di woo Touba ci kanam lépp lu ñu mën a jàppale ñun waa Xayra de ñoo ngi sàkku ñu jàppale ko ngeen mën a ndox.